ci affaire Lamine Diack li ma ci waxoon wax naa ko ci ba pare li ci bees mooy journal bi nga xam ni mooy Le Monde nekk ca Paris moo génne xibaar bi dégg naa ne dellu na ci ginnaaw ba jéggalu na sax te jàpp naa ni jéggalu boobu président de la république nangu na ko ma koy ñaan li ma ko digaloon ci dal ak ci wàllu euh, gën a apaiser situation bi mu profitoo ci loolu pour que jàpp yi nga xam ni ñoo ngi koy jàpp ay leaderu opposition ak woo yi ñuy woo journaliste yi ci police bi mu dakkal ko pour que euh, situation bi delluwaat ci jàmm incha allah.